linjiil di kàddug yàlla lii lañu wax ñiy déglu biibal bi te di ko déggal dinañ am mbég ci seen dund seeni youtube bi mu ngi fi ngir mu borom bi mën a def lu baax ci sa dund mën nga déglu fii jàngale biibal bi ci sa làkk bi nga nàmp ndax ñu mun la dooleel ngir sa ngëm yokku ngir màggal yàlla mën nga déglu ay cant ci làkk wolof ngir jàngal say doom tëgg gi am na ay dessin anime yiy jàngale ci mbirum mucc xaajaleel vidéo yi ngay déglu ngir ñi la jege nekk say xarit ak ñi nga xam xam kan mooy borom bi Yeesu Christ li njëkk li nga war a def mooy nga abonné ci chaîne bi ngir am yeneen vidéo yi ñuy jàllale biibal bi wax nañu tamit ne ngëm mu ngi jóge ci li ñuy dégg te li ñuy dégg doon kàddu yàlla